tey li ñu dajaloon action comité communal bi sous-préfet bi samp pour ñu xeex mbas mi nga xam ne moo lëmbee président de la république Nous ko def ci ay yu mag encore une fois de plus taxawaayam si bëgg-bëggu askan wi moo tax ñun nous comme que ñun ay lañ ci état bi ñun yëm moi tax ñu jëm mobiliser ay moyens lu melni ay euh, gel hydroalcoolique lu melni ay gants lu melni ay masques lu melni ay javel lu melni mada madar lu melni sabu be pare également ay thermoflash pour les postes de santé mais également ñu comme que gouvernement bi dafa am programme alimentaire d'urgence bo xamné daf ko jaglel ñi nga xam ne ñoo am soxé ci walu bi ñun égaay ñu duñ ko si seet état rek mu ci def loxom moo it ñun aussi si suñuy moyen ñu dégager pour le moment 20 tonnes de riz 400 sacs on xam distribuer nous avons ñi nga on ne am bokkuñ ci parce que nous avons jamono yi bi des askan aussi nous avons xam ne bateau askan bi na taxit ñu indi contribution gën a également état bi ci programme bi programme d'urgence alimentaire benen bi également mooy ni ñu ko defee ci suba dem nañ ci poste de santé bi parce que dañu né tay ji ku doon lam lamé place su santé ci adina tay war nga yété yewu ci lu bari lepp lepp taxaw lan moko waral jangoro jo xamné ne kenn du gis kenn du xam nokoy nokoy fagagalé koy ba nga xamné ci adina bi dara doxul ñu né ñun aussi santé priorité la si ñun au niveau de la commune de Wakunguna motax au niveau des 5 postes de santé yi nga xamné ñoo nek ci commune bi ñepp jot nañ leen en matériel médical pour ñu mëna relever ces niveaux de performance euh, moo tax salle d'hospitalisation bi nga xam ne remettre nañ ko à neuf ak ay matériels yu bees tax pour également jàppale infirmiers yi bu ñu mën gën a Ici, def si dans le cadre du Covid également poste de santé bu ne jox nañ la ay thermoflage ay matériel d'hygiène pour également nga nous a gën a mën nit ñi pour euh, pour euh, feebar bi bañ a law euh, li ci des nak nous nit ñi aussi ñu gorgolu seen rek euh, parce que le poste de santé nous ngi amone ay jafé jafé à xamanteni ci walu matériel ci walu li ci walu même euh, équipement légui tay monsieur le maire redéployer matériel bu toll ni ñeu jox ak lañ ci am. mu aussi moment bo xamanteni tombé nit coronavirus tey aussi ñu remettre ñu en même temps ben ambulance médicalisée boo xamante ne tey dinañu permettre ñuy transférer suñu maladie au niveau de Kaolack te duñu am benn jafe-jafe waaw léegi euh, matériel boobu noonu vraiment li ñuy ñaan rek mooy ne xol nan lañuy def euh, li nga xamanteni ni dinañ ko mëna partager ak suñu yenen nataango yi nga xamanteni ñoo nekk poste de santé yi parce que c'est pas la commune aw ah, nekkul ben poste de santé kese mo fi nekk y' a cinq postes de santé au niveau de la commune donc euh, buñu ñu vraiment am nañ yaakaar ne dinañ jëma jël ay dispositions pour séddale matériel bobu noonu dal wa ñuy gërëm maire commune bu nguna ti farlom ak bëggu askanam. Euh, bëgg a participer li nga xam ne président de la république moo ko santaane pour dimbal woy néew doole yi euh, ndimbal bi bu soobee yàlla am na ay commité yoo xam ne avant lii di am ñu ngi fi woon lépp loo xam ne bu jógee ko ci gouvernement bi ñoo ko daan saytu même bourse familiale bi nga xam ne président maye na ko ñi nga xam ne ñoo ko daan tànn comme ñu demee noonu bu soobee yàlla ñooy taxaw séddale euh, ndimbal bi ba ki ko yelloo jot ko. am na programme boo xam gouvernement bi moo koy euh, tëral d'abord lu ñuy wax revenu unique boobu liste boobu bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yelloo ndimbal ñoo lay njëkk jox bu fekkee nag ñooñu pare nañ am quota boo xam euh, comité local comité communal ñoom dañuy def ay enquêtes ci biir gox yi. seet ban ñan ñoo ko ñoo gën a yelloo comme li lu gouvernement bi indi euh, mënul daj ñëpp dañuy def dañuy def enquête boo xam ne euh, enquête bu objectif seet ñan ñoo ko gën a yelloo comme ça euh, village bi nekk am ñoo xam ne jël nañ leen foofu ménage léegi ñuy jox leen ñooñu revenu national unique ak quota bo xamné mairie ak village ñooy def enquête seet ñan ñoko yello légui aussi euh, don bi nga xamné ne euh, monsieur le maire la Dieng indi nako aussi on va se baser sur les critères objectifs manam seet ñi nga xamné ñoko gën yello ba mu gën a law euh, bu ñu sañoon day daj ñëpp ñëpp daal jot ci lool motax comme ni ko comme ni nga ko waxee sànq euh, ñeneen bonne volonté yi dañu war a manifester wu mer rek wala indi mais ñeneen yëpp képp koo xam ne am nga doole wala nga am nga kattan am nga euh, am-am nga indi si ndimbal pour ñëpp daal euh, jot si pour xeex li nga xam ne mooy jàngoro bi. parce que comme que activité yëpp tëj na ñu bëri lu muy gaa yu bëri si lu muy lañ doon dund lañ doon tedd.